biir la ñu dañ koy jaamu yàlla rek lañ ca def xajoon na ci ñun xajoon na ci ñun mënoon nañoo korkolal suñu añ sunu paree la ca des ñu wut ci faj suñuy soxla waaw mais nag am na loo xamante ni dañ koy liggéeyal suñu bopp mais dañ koy liggéeyal sax suñuy njaboot ngir ëllëg ñoom it duñ juddu rek fekk fi cër bu ñu am ci yonent bi tax duñu xam fu mu jóge fekk coono yii la ak yitte yi ñu doon def waaw donc ma sha Allah taala gis nañ sa taxaway yàlla yàlla fay la yiw dégg nañ sa kàddu aussi ku la deug xamni ni certes communicateur nga mais tamit nit ku yaru nga ku xam aduna nga te lol c'est important waaw lama koy wax toujours leg leg nit ñi li leen di ray ci jamono ji yeb moy dañuy top sen xol leg leg te leg leg aduna nak da ngay wax xol bi nako ko may ma tuuti ma ñëw jël sa xel nit ki sauvé deug moy ki nga xamanteni amna équilibre entre son cœur et son intellect tok moy ki ki équilibré que léeg xol moy liggéey xol la ñuy laaj du zikkar ak yoy na sa xol dem mais amna ya ya du du jëflante amee rek na xel duggu xol amul limite xel nak moy ngalabam ngalab xam nga ngalaaba moy fas liñ koy tak waaw moo koy moo koy moo koy moo koy freiné moo ngi mel ne oto bu buy daw ay vitesse yu rëy te amul frein kooku sawaay musiba day am de loo mën mën dawal soo rek musiba am donc loolu mooy affaire bi euh, moo tax léeg-léeg yaakaar naa sax soo leen seetloo bu baax am na waxtaan ñeenti waxtaan yu ma defoon ci Maam Alaaji li doon jàngale ci kan mooy kilifa waaw bañ ko laajee dana kilifa moy ki def limu wara def te baña def limu bëgg def di wax wah. wara wax tey baña wax limu bëgg a wax parce que li nga bëgg loolu sa xol la waye li la war nak kok sa xel la waaw loolu rek moy affaire léeg ah, ya, li ci ay xam-xam ak ay principe dina la nak ne la li nga doon waxtaanee ak li nga doon woote mais yow dal na sa kaw nooy def soo sukkee nangu dogal yàlla mu yëkkati la ba noppi dimbali la wuutala la lu ko gën soo dëgëree bopp nag moo xam ne yow naa fekk nga la nga doon wax gëmoo ci dara su boobaa mbóot ma nekkoon si yow mu rocc ko ba mu set yal nañu ci yàlla musal mooy sëlbu baaxul yal nañu yàlla dimbali kon mais ne ko mu ñëw ñu ñaan bopp donc affaire ba ngoog kontaan nañ bu baax a ah. bëgg nañu ngeen gën a taxaw seen affaire la taxaw ci bu baax toppatoo ngir nit ñi rek ngir yàlla sans attendre quoi que soit même merci wax naa daan naa ko xale man leen bu leen attendre sax merci jërëjëf sax bu leen ko xaar waaw parce que fayu yàlla moo ëpp lépp hmm, yal nañu yàlla fay soxna yi jërë ngeen jëf macha allah euh, y a rien avait été très brave, très pugnace, très euh, sérieuse. parce que liggéey bi dafa laajoon benn taxawaay bi waaye jàmbaar ngeen gis nga yéene bu sell dafa am solo kaay xewlu bii dëgg la xalaat naa ko teg naa ko mais faagee mii rek yàlla mën na ko fayee. vie dama ko wax ne ko coono yi ngeen daan am ci dernière bourde bi moom la leen yàlla fayee. yonent bi loo ko defal rek mu multiplier ko dafa tabe te sakkan dafa xor sallallahu amuñu lu ñaari booli jàpp la ñaari booli wallahi bi fay maa woo ñu ànd di wër xam nga daje nañ fi yow bi ñu ngi ci affaire waaye xaw naa dëgër instant yi ñu waaye waaye yàlla baax na lépp dina baax bi ma demee di bi ñu demee di ket di ket di ket ba mu sonn moom ma ñu dem ci Elimane commandé ko ñaari bodyguard dañ ne ko defaraatal ñu yeneen ñaar incha allah balaa ñu tëdd ci lal dinañ la ko fay. allahu akbar wallahi mu defaral ñu quatre booli fay nañ ko lépp bi ñu ñëwaatee ñu wëraat moom dafa libéré wu ñëw toog fii parce que mu ngi doon ànd ak faage di di jënd yeneen mën a ko demal mhm. bi ma demee maa wëraat di ket. di ket di ket ba ñu amaat meew mi nit ñi naan ak kafe gi nit ñi naan ba 15 heures maa ngi def loolu ba 15 heures ci la lépp di doog a sotti. wallaahi na yàlla. dëgg la dëgg la Ndiaye xam naa loolu moom la leen yàlla fay ah. la leen yàlla fay moom la leen mii dafay ñëw bés daal di non sax est-ce ma ko WhatsApp wala xaw ma daal xaw ma mu ko jaaree daal. ne ma mandal, man dal lele jotay yi day metti lol te nit ñi tamit lele dañuy xif te duñ mëna wax ñom dañuy contane duñ lay déglu ba dañuy fatini sax dañoo xif wa mu ne ma nag duñ sañoon lan def ay bong bong yu bax boole ko ay yenn affaire duñ toogee bala ngay waxtaan wala ci biir waxtaan wi rek ñu seddel ko nit ñi dëgërlu ci ba kérok rër yi pare ma xol ko mais xamni ki amul dara dafa nara nek fi wër dëkk bi di ñaan rek mané ko ah Euh, bàyyil rek après ñu waxtaan ci pour bloquer ko rek. Mm-hmm. mu daal di dem après bu mu kiiyee beneen at tamit ñëwaat na waxal ma ko ma ne ko ah faa kii rek kiyal rek léegi daal xam fekk boobu maa ngi programme dama ko fàtte ma maa ngi programme ni ah kii daal damay wut benn fukki fukki junni jox ko ko ne ko demal wuti ay gato su la neexee bu dee ñaar nga ci mën a jënd nga jënd ci ñaar benn bi nag yow li lijjantil ko sa bopp pour dimbali ko rek. ndekete yàlla dégg na yéeneem li ma leen wax ni lu profond la du ay caaxaan de ndekete yàlla dégg na yéeneem gis nga si ne nii xoolal li li loolu forme bi mu jël ba dépassé nit ñëpp waaw parce que euh, ma kenn xamul lu doon ah <laughs> dafa garaaw de mm-hmm. dafa garaaw dafa <laughs> garaaw kaay déglu ma kaay lekk bokkul de te fi ne nii du du tasaaroo ba pare léegi xanaa euh, fañ jëm mooy defar ay enveloppe nag taxaw nag ku naan café ñu jox la vingt mille ah waaw waaw waaw ku naan kafe ba pare wala nga xewlu ba pare ñu fay la vingt mille nga dem sa yoon waaw kaay lekk ñu fay la waaw. xewlu fii dem sa yoon noonu la. xam naa ni boobu moom moom duñ ca bëri candidat yu ñu yu ko jël du dëgg waaw donc yëf yi daal ma mbokk euh, yéene bu sell daal moo am solo man loolu laa gëm nit du yéeneem sellee lu nekk yàlla mën na ko feeñal ci loxoom waaw mag ñi ñëpp dañ daan toog rek seen néeg nii rek daal di def seen salaatu na nabi wala ñu jàng kaamil ba fajar màggale ko juddu yonent bi mais xoolal tey ji milliar yi ci wàcc ñoom ñëpp béy lañ doon rey mag ñep seen bés yi yëpp béy lañ ci rey béy maam sëñ Tuubaa mi kafe la nan défar togal ko bopam ba mu bax du joté défar ak ataya di séddale nit ñi loolu la amon way tay ji ñaata nak ñoo daanu Touba Maam laaj malik mi ab bëy lañ rey pour gamu Maam laaj Amal Borom mi bëy la nan rey tey jii ñaata téeméeri nag ñoo daanu fi moo tax yéene bu sell rek am solo yàlla yàlla jàppale ñun ñëpp donc kontaan nañ bu baax yàlla yàlla defal leen dam moo tax seen yéene kenn ku ci nekk xam naa ni moom laa wax damay wax ni ñaari mbir duma ko juumee mukk mooy ta mbokk taalibe yi ku ci def erreur dangaa ngaa juum ndax kenn bugg ci yàq mën ngaa bañ a dégg nag wala nga bañ a comprendre wala ma wala sax mu jóge feneen ñaareel bi tamit ku ki ki def sept cent mille francs yi ak euh, njagaloom bi ma doon wax bi ma jox mille francs yi ñoom laa yemale te billaahi dëgg la ah, waaw waaw <laughs> njagaloom muuma la mooy pa doomu ki toogoon fii uh-huh. mille francs la am moom la ñëw ba ci sama néeg fulla gi mu ko duggee parce que ñi ñaa ngi fi bloqué ko mais dafa muuma bu yuuxu xam nga loolu kenn xamul lu mu doon indi coowam ba ba kii ba ne bàyyi leen ko mu ñëw mu ne ma man dara indiwuma fi dama ñëw rek pour ziar la jox la sama diya 1000 francs 1000 yooyu dama ne moo ko 700000 yi ma waaj a jox benn la ndax 1000 francs yi dem na 700000 yi dem na. dem na ci yàlla jeex na ñoom ñaar ñooñu wuutale wu ma leen xam nga lu tax. wóor na ma ni kii gën a ñàkk pas-pas ci safina su amoon milliard indi ko lu ma wóor la wala loolu amul jeex na moo tax moo tax ñun yooyu yëngaluñu ay xaalis ak ay kii ak ay non gars pare nañ bu yàgg ndax ba ñuy def amuñu <laughs> ba ñuy def amuñu ñi jënd nag bi yëpp cinq mille francs cinq mille lan daan cotiser te 5000 seen yaay dañ leen koo may wala ñuy wër di ko yalwaan ba mu daj ñu ñëw indi ko tey jii kenn ku ci nekk day jënd nagu 400000 500000 indi ko man nag junni boobu mooy nag wii yëngaluma sax am na at yu bari sax gisuma seen nag yi at yu bëri ren ji laa dem ca nag ya mm-hmm. mais at yu bëri man xawma nag yi nu ñu mel te nag yu mag lay doon 500000 lañ koy jëndee. yéene bi moo am solo yal nañu yàlla dimbali soxna Ndeye jërëjëf Ndiaye yow sa teewaay ah teewaay bu rafet la dafa mel ni jur yëpp ñëw nañu te xam naa ni ñëpp doom nga leen jàppee yow ngay jigéen ju ju ju ju teey jigéen ju ju civilisé ju correct ba noppi euh, dal jigéen ju dal la. digne c'est important waaw dignité dafa dafa am solo de parce que àdduna du dara lii soxna su baax daal ñëw fii naan ma sëñ Mor toogee yow wute waaye ku xëy ndékki waaw kooku yow wute waaye ku xëy ndékki sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma dañ ne diw jaay na ngorom mu ne mosu koo am mm. déggal ñu diw jaay ngor moy mustaka musuko am ngor kenn du ko am diko jaay ngor nim neexee diw jaay na ngor mu ne musuko am na fay diñ dafa am solo aduna ben mag daana mo fi neema señ mor ku ñu ñee rek musna la laa wala ñu yërëm sa nday baas bay <laughs> il faut diñ def ndank yëfi kenn yoru ko ku yalla kenn amul lu lu lu kenn amul lu la yàlla joxul maa la ko wax soo diiñee nag dal muñ def ndànk mais affaire yi dina ñëw te di nga ko lekk avec dignité mais soo doyee dee wala nga euh, waaxu walla nga yàkkamti waaw sànq bi ñuy taxaw maag sama mbokk suñu Europe mu ne déggoo wala fi naan ah mbir mi nañ ko dox xam nga ne naan damay dox sëy wala nan dox mbir mi pour lijjanti ko loolu la wax mu ne waaye déggoo wolof ne nañ ko daw dégg-dégg dafa am solo parce que daw précipitation la yaa ngi xiixëb yaa ngi ñaq poussière bi yaa ngi jóg mais dox dafa dal lu waaye am yàlla ak ko jox lu waaye ñàkk tamit sama borom ko xañ te la tax mu xañ ko ko xam na ko moom yàlla donc restons dignes njaboot gaa ngi ñëw waaw léeg-léeg dama koy wax jigéen ñi man leen xamoo leen loo leen doon xamoo ko lay takk des digne xamoo fooy mujjee xamoo ban doom ngay am xam nga toog nii xam ne yow sa sët bii mérité woo wala sa doom ji mérité woo kooku baaxul te lépp li koy waral mooy ñàkk dignité soxna nday jërëjëf Njaay tabaarakallaahu seen baay faatu na waaye kenn du leen gis yërëm leen te xëccoo ak ñoom te su la neexoon nga tàggale leen ak seen waa kër baay waaye ñoom ñi ñëpp xam na ni mbaay lañ sant waaw ñoom ñëpp xam na loolu te yàqul dara ci li nga séq ak ñoom kenn ku ci nekk ci ñoom mais te te c'est des gens bien te am ko soowee jiitu ci biir maa la ko wax waaye la bu yàlla bu cat dugg yàlla na yàlla musal yàlla muccal yàlla yàlla barkeel leen waxuma sax ñoom ñi seen njariñ loolu jàll na waaye seen doom sax yàlla nga fekke seen njariñ yàlla na la Cheikh Mbaye mi yóbbu Makka tàngal tal ko nag incha allahu taala yal na ko yàlla def tabaarakallaahu xam naa ni ñii moom du ma leen tudd moom sama sama gars yi hmm, ñoom euh, ay élément maam alaaji la woon avant Safina loolu daf am de man gis nga taalibe yi kenn ku ci nekk xam naa la am na ñoo xamante ne xam nga la leen seet ak jël wér jeex na dem nañu <laughs> loolu lañ seet àdduna bi yëpp man lañ ci bëgg may leen wér waaye ñoo ngi ci yeneen i mbir nangu naa ko doo leen gis gam do len gis ziar do len gis dara way lol moy sen cër amna ño xamanteni lenen amna ño xamanteni mi man xamuñu ma sax mam alaaji lañu gëm moom lañu ñu gëm sa gaay yoy nga indi yeb mais ñom ay element mam alaaji lañu bàcc doo leen dimbali woon safina tamit mam alaaji lañu gëm yow da nga leen dimbali pour lan ñu mëna nek ci cadre bu ñu mëna liggéey le mam alaaji da leen a fekk seen gëm maladie mooy anglais yi da leen dimbali nag orienté leen mooy nga moo ngi mel ko am milliard te xamul nu koy gérer nga ñëw dimbali ko ba mu investir fii def fii ba xaalis bi yàquwul noonu nga leen dimbali mais ñii mamalaaj lañ gëm man xam naa loolu taalibe yi kenn ku ci nekk ak lu ko indi ñii Cheikh Tidiane rek leen fi indi ñii Cheikh Omar rek leen fi indi ñii am na ñoom te ni sëñ Mor ay njaabam ak ay dégagement ku nekk ak xam naa loolu baax motax duma len ma le njabotuma wala ji duma len du le ay taalibe Maam Alaaji lañ xam naa li ma bu baax waaw ñoom ñi ngok te lolu dañ ko dañ ko namp dañ ko ci sen ADN la bok am na yàlla fay leen yiw sëñ Babacar tabarakallahu jambar la parce que tamit nit day xalat fu mu joge waaw nit day xalat fu mu joge buntu yi ko yalla njëkk ubil mais mais fàttewuñu xajoon na ci moom su ko neexoon tamit mu def leneen de te man du boobaa tamit dara suñu biir la xam nga moom teraanga yi mu fi indi wax na ma ko ba ma gërëm ki ko indi te teraanga yi ñëwagul parce que damaa jàpp ni lu ñëw ci moom ñëw na ñëw na ci man ba pare. te lool xam nga du du doo ko déggee ne nga naan kii lii du muy wax du wolof jox na ko waa ji ñëw fii mu gërëm ko ne ko lépp yegg si na. te dëkk la lépp yegg si na ndax lu ñëw ci moom ñëw na ci man waaye am na droit ci cëram bi mu am ci maam alaaji lu ñëw ci man ci moom te ñëw ci man am na droit jël ko waaye ngor la wane yenu lépp indi ko sànni ko fi dem yoonam loolu nag investissement la incha allahu taala dama lay ñaanal yàlla ci barke maam yi mi nga gëm barke Seydina Muhammad bi ñu doon sonnal balay yàgg léegi yow nga mën a jënd triple am waxuma la sax nga ko indi fii ci man ndax wala sëñ Muniru loolu sunu sag la waaye nag ngay dem fee ñu naan taalib ma walaa ji baa ngay dagg bu mu gàccee comme ordonnance daw ku jaaxle daw yàlla na ko yàlla def loolu nag mooy investissement dafa am benn xale fii sama papa daf ko jox ijaaza xale bu ndaw la amul sax xale bu ndaw la mais nit ku nekk ak cëram ñaaw laa ji moo moo ko wax sama ne ko ijaasal diw cëram la man mi maa bind ijaasa waaw donc euh, mbokkam mu dëkkal ci benn kër ci Tëngéej yaakaar naa wala bari ñaan ko wér ndax gis na ni muy góorgóorlu ak yooyu mu ne ko déedéet nan dem Thiès mu ñëw fekk paa bi dem France mu yóbbu ko ci imaam mu may ko wér bi mu ñëwee fii nuyu ma mën na ko yow nit ñi niñ bëggee taali bi ak may ko wér ak wooteeg daraja yow sa mbokk mii di sa papa xaw ma sama ne la may ma wér yow laa doy yaa ma yaa ma doy nangam nangam nga ne ko nan dem fa ma jëlee nga jëlee fa ma ne ko def nga lu baax wane ne ni yow ku ma des nga sa mbokk mi tamit dina am lu baax ndax dina am ci yow am ci imam am ci sëñ Munir am ci mamalaaji te du yamoon ci yow mën naa am mu am loolu waaye barke ba du ca dugg ma ne ko waaye na nga xam ni incha allahu taala tôt ou tard sa benn bii dina la jural ay junni ma ne ko dina la jural ay junni xanaa ko loolu tax li xam naa ko il est très jeune hmm. ko bu doxal rek ba ci kanam di gis ñoo xamante ni doo xam fu ñu jóge ay junni ñëw sukk sa kanam jox la seen bopp waaye Babacar mii loolu laa ko wax loolu yow yaa ko njëkk waaw waaw loolu yaa ko njëkk ba may jël wér dafa laa woo ma ma maa ngi Maroc damal fële nga jël wér damal sama bàyyi nga jël wér foofu loolu moo war nekkoo fi hmm. ma woo la fii ci télécentre bii Abdou Gueye fii sëñ As Njegen nekk foofu moo amoon kii cyber foofu laa la bindee internet ni la damaa bëgg a jël wér di sëñ bi te yow laay xaar tant que ñëwul du ma jël nga ne ma déedéet demal ci sama baay mu jox la wér di salaat Fatiha. damal te loolu yàgg na. day ji yaa ngi ni adduna baa ngi daw di ñëpp di ñëw ñëw ñëppay ñëw te ñëppay ñëw nag ñëppay ñëw jël wér.

ma ne ko tasawuf mooy in in lekkin naanin waxin jëfin toogin jógin ma ko façon la rek yëg-yëg la rek ci xol hmm. lii tamit façon bi moo neex moo rafet xajoon na ci yow xajoon na ci say wéyjur euh, soo ko téye woon tamit wala nga jël benn saak yónnee ma jël ñaari madaara yónnee ma lu sama yoon alal maam alaaji la yow élément maam alaaji nga loo def mu neex ma moo ngi nii

waaw garab yeeg bëy yeeg fas yeeg mbaam yeeg nit ñeeg li ñu xam ak li ñu xamul yëpp lay alimenté kooku bi cent centralu monde bi la. waaw benn. maa ngi koy fàttaliku sama pap mi soog a toog benn naar moo fi ñëw naar bi sama pap boole maag moom ne mooy àndal ak moom samaam mu ziar ko boobu ñoo ngi soog a denc maam alaaji boobu rawdu bi defaraguñ ko sax suuf saa nga fa woon. ma ma indi ko mu ne ma xam nga lu tax ma ñëw fii ci samaam man ko déedéet mu ne ma ziar si ko pour ziar si ko rek mu ne ma man euh, su ma safal chaque année ci waxtu waxtu bu bu bu bu juste waxtu boo xamante ni loolu mënta rate mu ne ma ma nekk ci njàqare gu rëy rëy rëy mu ne ma jamono yi yëpp benn métier rek laa am mooy jooy ndax triste ak njàqare ma toog ba caag daal ne ah waaye man te maay ñaan yàlla mu dimbali ma ndax man mënu ma dem Mauritanie fa la sëriñ ba nekk mënu ma dem Mauritanie gànnaar mënu ma dem te il faut que lii ma lijjanti ko xaw ma nu may def nee na bi mu jooytoo yàlla ñaan yàlla loolu rek nee na ci la tëdd nee na ñu ne ko mais yow xanaa xamoo li xew xanaa xamoo ki ñuy wax alxaaji Mouhamad Njegen mu ne ah foofu daal naa mu ne ko waaw mu ne kañ xam naa kañ. na dem fofu di jeli addiya en tout bi yon nak do fa dem di jeli addiya de xanaa fim ni fi ko fim tollu ci yalla wolu yalla yeb dañu dajalo ci mom waaw nitu yalla yeb dajalo nañ ci mom waaw fo meunti bok so ñewé ziar ko ziar nga sa serigne te yego ko mune nga ni ñu ko waaw waaw maa la ko wax central la ñëpp lay alimenté lii lii du ma lii <laughs> xanaa xama ni loolu sax daanaka defatuma ko <laughs> defatuma ko waaw moo tax moo tax moo tax yal nañu yàlla dimbali rek <laughs> te suturaal ñu àdduna amul solo nañu rafetal rek di def lu baax di wax lu baax waaw yàlla baax na àdduna amul solo keroog dañoo ànd ndax <laughs> yàlla ñu yàlla dimbali. yàlla ñu yàlla dimbali. waaw keroog dañoo ànd ñu moo indi ko mu bëgg mu war a ziar waaye am na nu mu def waaw ba ba ñu dégg lu ne kaccit waaw bunt bu ne taqeet ubbeeku mu ne baax na toogal waaw dañuy dox rek di dox di dox ba mu ne kaccit ubbeeku mu wax ak moom wax laay wax ay wolof la ko wax de. alxaaji Mouhamad Ndiéguène man Chérif maa ay aynayni lim ay maamam ba ca yonent bi ne maa ngi ñëw di jaar ci yow di ziar waaye wax wax yoo xamante ni <laughs> la ca tegu mënuma ko ci mbooloo loolu benn yoon sax laa ko defaat ndax ba mu paree la jël yépp bind ne yaa ko moom ndax ñëpp a ngi fi yow la sa papa wax nga ànd ak man waaw kenn mën tax lépp <laughs> kenn mën ndax lépp yàlla yàlla dimbali donc kooku noonu. <laughs> kooku dafa loolu dafa garaaw man keroog. dafa mel ni man dafa am rek lu ñu ma doon jàngal daal. moo tax ma ko laalee benn yoon ca laa ko bàyyee su ma ñëwee ma ziar rek ñaan samay ñaan dem sama yoon waaw xam nga li ma bëgg a parce que xam après la comprendre ne dañ ma doon jàngal rek dañ ma doon lu ñu ma doon wan ci dimension bi rek mais du pour lu may ñëw di ko di ko use quoi. waaw ah, ma bàyyi mu sedd waaw <laughs> ah, donc euh, kooku soo ko tuddee doom ramm nga say wéyjur ramm nga say maam laa laa kooku beneen dimension la waa ji def na ko te bis bi moo ko defee bi mu ko tuddee laa ñibbi turandoom ñëw na ci burdu bi ñëw na ci gàmmu gi waaw loolu daf fort

yeb dama koy fédjal rek pour ñu sant yalla xam ni sha allah tabarkallah lat lat mom, momit c'est la même chose <laughs> mom, mom mom mom mom mom alaaji la mom momit yag na bam koy bëgg di ko sopp du tay waaw sa way nak mo gëna xumbu mom bané affaire waye gaay yu graw yaangi ni day day rek ndaysan prince tamit c'est la même chose nit ku bax la waaw ku bax la ku am pas pass la ku am xalaat la te nit ku deggu la waaw léeg-léeg rek mu yónnee ma benn affaire ma ne ah sama waa ji daal lu soppeeku. ndeysaan <laughs> poli policier du bàyyi dóor lu ñuy wax ah. <laughs> tabarkaal la waaw ah, loolu yëpp sant yàlla la. Euh, soxna Ndama c'est la même chose macha allah moom it maa koy téye sama loxo bii rek njatt ko sinon <laughs> waaw borom xaal la moom it ndeysaan. Hmm, yàlla yàlla mottali yéen euh, li ma wax nii dafa mel ni sunu ndey yëpp a ngi toog waaw yàlla seede loolu. yal na yàlla barkeel la barkeel say njaboot saafara la bu baax ubbil la xéewal yu bëree bëri bari li nga ragal yàlla boo ko gis li nga bëgg yàlla loolu ki yàlla teg sa loxo donc kontaan nañ bu baax Thiaw euh, jërëjëf macha allah yàlla na déwén gën a neex waaye déwén nag il faut nga indi chapeau yi mbaxana mbaxana chef yooyu faut nga indi ko ah, yu rafet mu ngi ko def ay vert blanc yu rafet waaw ah, su defee ñu taxaw bu baax mu gën a baax nit ñi xéwlu nañ Mamadou Faye jërëjëf sama jarbaat ah <laughs> ndeysaan jàmbaar la papam gaañoo moom woo téléphone waaw ma bëgg koo wax waaye moo ma waar lu ko gën a neex am na moo ma waar waaw dama sëriñ dara lépp baax na lépp baax na dalal sa xel bu baax boobu man ci mbooloo mu mag ci di fi ñuy wax dix-huitième Paris Barbès waaw mu dagg lépp te boobu maa ngi waaj maa ngi ko doon xool sax nu may waxee ak moom ndax xam naa xam naa position caat dafa metti mm-hmm. ak si bopp dafa doy waar dëgg mais mu woyofal lépp bismillah sëñ Moussa salaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam jegeen jegeen ma a jërëjëf jegeen yegsil yegsil yegsil toog may ko mu toog doon doon waa ji ñaan nii sax ñëwal toog ñëwal toog yow it ñëw dugal. waaw waaw ma tëj rek jox la kon donc euh, euh, yëf yaa ngoog toogal nii sëñ Moussa donc yooyu daal laa bëggoon a feeñal kontaan nañ waaw yàlla na yàlla mottali yéene yëpp vraiment ba ngeen di waxuma la sax di defar seen kii mais ngeen di coordonné ah ba nit ñëw di di leen roy wala ñu ñu ne ah bismillah ren kat moom sa il faut mu dem ndax dafa am ñu ko soxla ñoo xamante ni projet bi ñu doon def fii moom la bëgg waaw moom lañu ñu bëgg appliquer foofu te te mën na ne waaw mën na ne parce que nit da ngay am gis-gis parce que ñun suñu exposition bi li taxoon ñu commencé ko 2005 mooy dama gis ni am na discours yoo xamante ni du am ci penc mi mënul ne parce que gàmmu dafa am façon te am na loo xamante ni jeunes yi war nañ koo dégg war koo jariñoo te loolu il faut ñu ko cadre le ce la waaw te message yooyu jàll na 5 ans 6 ans 7 ans man len sama sama doyna nak On na actualité bi heure bu jamono six mois yu nek ñu xol point yi ci sensible ñu traité ko a wax nañ nañ fi drogue nañ fi euh, stabilité nationale waxta thème thème yu généraux yo xamanteni amul relation ci zahir ak ak sax bi moo ngi branché wu ci yonent bi mooy al xaitati bi markazil fuhumi wal maani waaw ah, mu nga kon sant nañ bu baax xaaj Moussa jaa ngeen sama gaynde yi Abdou Khadir jërëjëf xatmu Khatmu bi neex na ah jàng na xatmu bu neex biig ci guddi laa ko seetaan ci fajar gi waaw góor noonu moo baax nit da ngay marqué marqué sa sa empreinte gars yi xam ni yegg si nga na ah alquran ju neex xatmu bu neex la jàng man nag ànd ak gars yi dem ca rawdu ba def liggéey bu exceptionnel wéttali foofu mag ñi ak yaa xam ngeen jëf mm-hmm. ah, banque bi barkalla moom ñoom laay tuddee colonne vertébrale safina waaw mm-hmm. ah, dina baax nag yi yëpp du dara léeg-léeg loo gis rek dafay am ay li ñuy wax ci anglais rise and fall waaleykum salaam am yegsil bismillah ñëwal kay toog ni ñëwal yegsil may comme jàll mooy jégalu. moom laa ko yokk waaw ma ne ko. ça dafa gaaw ay message la fi bàyyi woon message la te na ay nekk lu ne. moo doon message te day gën a yokk. waaw loolu day am Raisin fool baax na lépp yiw la waaw lépp yiw la ah <laughs> lépp baax na mission la rek kenn ku nekk dangay taxaw soo leen demee dellu siwaat mu gën a neex maa la ko wax ne vous en faites taxaw leen góor góorlu

dinañ la fay ku defe joxe milliard yéene dafa am doole waaw yal na yàlla fay leen waaw Mahabba Haj Bouba moom it ils ont fait un travail remarquable waaw dañ fi indi ci doomu dërëm loolu jéggi na doy wax te ay guerrier lañu waaw dégg naa ci ñoom kenn kook loolu mu ne ah ñun ñëpp yokk nañu kon lépp yokk nii rek lañu wax waxta ñoom seen discours loolu rek la woon de ñun ñëpp dofuñu yokk nañu kon na lépp yokk te yokk na lépp nag waaw wax boole ko ni discipline important looy wax ak looy def nga xam li ngay wax ak li ngay def waaw loolu ah bismillah ñëwal donc loolu dafa am solo donc yeneen safina yëpp tamit ñu leen di ñaanal safina armée am na lu leen jox ci mission ça fii na infographe am nañ mission bu leen jox ça fii na étudiants yi Hadj Ahmed Diagne ñëwal soxna Ndiaye toogal ñu ana aw gi awa ñëwal borom kerse la aleykum salaam toogal noonu waaw donc Safina GIE bi GIE maam yi nga fay bi safina diaspora Safina Oustasi, Safina Yop, ils ont fait un travail remarquable. Safina Ouvrier, ñëpp yàlla yàlla fay leen yiw waaw yàlla yàlla fay leen yiw àdduna ak Allah. ndax kenn ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gaa yëpp ay jàmbaar lañu hmm? ñëpp ay gaynde lañu taxaw nañ li ñu war a ci fulla ak ci fayda waaw pas-pas te yu bax la ñuy wax ki def ma yónnee vocal mom dinañ wax ay soxlam de comme am fulla la drame bi waaye daf ma yónnee vocal di gërëm bay fàllu gërëm yoo xamante ni man sama yaram daf mujj di daw billaahi sama loolu yëguma ko sax xaw ma ko wax ma wax wax wax wax ma kontaan waaw euh, euh, koor gi dama toog rek yaakaar naa Omar Kane yónnee wan ma ay foto te ñoom nag ay photo rek lañ may jox duñu ma sédd dara wa waaw duñu ma sédd seen yu baax rek la ñuy sédd kii yónnee ma ne ma diw Amadou Ciss la xaw ma moom ma jëndal ndogu loo xamante ni euh, Omar Niang day ñëw ne ma yére yëpp karaa ko jënd moom ma ko jox moom ma ko te yu baax lay doon de euh, ñëw nit ne ma téléphone bi diw ko jëndal mais c'est yooyu dafay neex dem yóbbu sa mbokk jëndal ko reer mu reer ba suur kooku du la bañ du la bañ te du nangu fu du toog fu mu lay yàqee yonent bi moo ko wax du taxaa bu dee leen mayante bëggante loolu moo tax ma leen dox naan dee leen mayante parce que nit doo ko xësee ba may rek jeex na moom it su la mayee jeex na ngeen bëggante jàmm nañ loolu man ju action yooyu moo ma neex man yooyu ko lu ma nit mënti wax yooyu moom gënal dimbalante bëggante xoolal am na ci yu garaaw yu am ñii war a jàng yi ñii am ay problème de bourse ñii am problème de fay seen seen euh, inscription ñii am problème nga gis seen mbokk taalibe li jënt ko ci pet kenn ay cent cinquante mille francs kii da koy def léeg-léeg mu wax ma ne ma ah sëñ Mor ma ne ah, mu ne ma ñaanalal diw may na ma cent cinquante mille Sénégal am na ñuy may cinquante mille loolu amatul loolu foo ko gis rek am na lu nekk ci ginnaaw may am cent cinquante mille ma may la enveloppe yooyu am na kii xam na damay woo ñaanal ma diw keneen noonu keneen noonu ak yeneen taxawaay yu kenn mënta expliquer yooyu kenn ko tudd ci gémmiñ ëpp naa def te dafay am moo tax gars yi gars yu baax lañu gars yu baax lañu ils bien xol yu rafet lañu am yàlla na yàlla jàppale ñëpp barkeel ñëpp seen i yitte waaw xam naa ñëpp xam naa ñëpp ku nekk li ngay dox xam naa ko dama ba dama dul nit kuy expliquer rek parce que bëgguma mu yàqu parce que léeg-léeg làmmiñ du duggee rek mbootum yàlla bi day rocceeku day rocceeku moo tax léegi ci jëpp du ma wax du jamono doxee nag ba mu wóor mu ni jëf yooyu denc nañ ko dootu yàqu nag na feeñal ko ngir xam ni am na yeneen yi war a feeñ yu baax yàlla fay ñëpp mbay mi mbay mi moom njëkk a moto bi jar buy jar parce que six cent si mbay oto mu ñëw chaque jour dama daan ñëw di ko dem mas dama ne ma ñëw ko mbay li war a may yaa ngi soor mun ma may naa la ma téye moto bi 15 jours ma ne xaaral ma delloo ma ñëw di ko delloo si man ma bàcc may naa la ko. parce que moom parce que su ko doon jaayee gën a yomb mën ne ko jaay cinq cent mille. mbay wax nga ma ko ak yeneen. wax nga ma ko ak yeneen. wax nga ma ko boole kooku jooy sax. voilà moom. Mm. moom dafa dafa dafa dirigé moom nag lépp moom moo dirigé lépp. ak dépense yi muy joxe ak ordonnance yi muy jënd man sax moo man loolu moo suma ferte. loolu laa gën a bëgg man suma ma soñoon damay xëy di jënd ordonnance ba ngoon. moom mii moom ko nàmpatal baax si waxtu mais lépp nag moom la dalaa may oto. Mhm. yow dalaa moto yow ngay may ay yére. ndax am na jànk ñu bari ñoo xamante ni buñ ñëwee di jënd si ecole bu tijjee yow yaa leen. yaa leen toppatoo seen xam naa ko. xam na ay góor ñun ñii dañuy may heure bu ñuy dem Dakar dinañ jox semis mbaa mu jox ñu kak. xam naa te kak yi day jar kak yi 15000 la kak yi di jar. da koy jël joxe ko ñaar ba ñett duñ ci boole am ñoom ñëpp sunu mag ñëpp baax nañ am ñoom ñoo yor ay scolarité ay xale yoo xamante ni seen papa yi dañoo dee ñii seen yaay yi dañoo amul doole mais gars yi ñoo leen jël di leen fayal pendant ay ay BFM ba bac ay ay six ans te kenn du ko yëg yàlla billaahi laa la wax am na ñoo xamante ni fëgg naa leen lu mu bon bon ñetti yoon ñu jox ma trois cent mille mu dem seen i mbokk taali bi billaahi loolu du million neuf cent mille ngoog waaw te kenn xamu ko su kenn mënul xam kan la kañ ko xoolal kañ ko jox sax xamul ni diw ko jox ndax dinaa ko jox ñetti nit mu jaar seen loxo mu soog a àgg ca moom xam nga kon mënoo xam kan la mm-hmm. jox ne joxal diw mu jox ko diw mu jox ko diw mu jox ko kooku kenn du xam kan la ka ko joxe sax moom xamul fan la jëm maa lay wax ne ah soo ay kat nangam ak nangam léeg-léeg dañuy ci koo te ne damay wane ma ah sëriñ nangam a ngi fi pour lu njàqare boo am rek ñu jël yooyu dafa baax dafa rafet te te nag noonu lañ ko defee bitim réew ah oui alaa ah, ilaaha oh. te foofu nag fa la ndimbal nag foofu la gën a graawee mm-hmm. mais gars yu baax la ñuy def foofu te ma ñoom dañuy jàpp lu ma ko mais nit day ñëw wara inscrire ay ñun 900 euros la inscrire 954 presque 600 000 francs ñoo leen gëna cher inscription de fop wala nga am chambre day la caution wala nga mais vous <laughs> vous bu dé jigen nga suñu la wu jëm musiba du am Vous dal suñu musiba day am mm-hmm. mais gaay ku ne cëpp taxaw.

gis nga moo tax looy def lu baax rek xam defal lu baax rek Pam Ndongo moo jiite woon Bakia gii jullikaay moo ko jiite woon moo nekkoon président bi bi daa bàyyi ñëwee ci saasi la ma wax ne ma sëriñ man bàyyi naa jiitetuma présidence bi jox naa ko daa bàyyi man daal simple lu taalibe la lu daa bàyyi soxla na ma wax ma lijjanti ko hmm. loolu bareeti na ci réew mi hmm. nit ñi daraja rek la wut motax yalla fayna Ibba France fop moko dalal moko defal lepp mais biñu ñëwé si Ibba dafa ñëw ba ci man fekk ma sama kër ñu tok wasifa ba paré mu ne ma ah euh, man ma fi nekkon di top to gaay di to walu safina waye Ndongo mi man mom la bëgg mu ñun lool. ko gis le bienfait n'est jamais perdu. lu baax du réer inna allaha la yudiu ajral muhsinin kon nag yëpp yaa ngoog kontaan nañ ma ma ma ma ma présenté rek après ngeen sànni seen kàddu yi la nga bëgg wax ci yaayu kii Babacar tamit xam naa ne il faut mu wax tuuti donc ma présenté leen ñii ñëw fii nga xamante ni ñoom it euh, ci ñun lañ bokk waaw ñu ci njëkk mooy soxna yu baax yi ñoom soxna Njaay di soxna suñ Cheikh Kane Njégéen di yaay Ndeye sama sama taaw bu jigéen ñi ah <laughs> léegi moom am naa jànku jànku rafet waaw macha allah waaw donc mooy yaayam kii sërëm la soxna Awa Guèye moom it fi mu nekk ci daara laa nekk fu ñuy dem ñooy ànd yëngatu yëngatu ñoom ndax ñoom nit ñi dina leen te seen kër ñu baax lañu ñu sell ñu set ñu bëgg Mama Laji waaw tabarakallah yal na yàlla fay leen ñëw nañu ñëw si ziyaar si euh, ñii ñii toog nii kii mooy sëñ Mbaj. Mhm. sëñ Mbacke mii mhm. dafa gàmmu si ren fii mhm. ñëw ànd seeg ñun ci bés ngay ah. ñaanal jàmm ak xéwal ak wér ak sutura ah. te li muy sàkku yàlla yàlla jox ko si lu ëpp jox nañ ci ah. euh, tabaarakallaahu comme ni la ko mbokk mhm. ku nekk tamit ka ka kañu kañ ko xamee rek lañ koy xoolee yow ñoo ngi soog gisante mais kii ku ànd ak moom fii doo fi doo fi doo fi tumuraanke déedéet mënatu fi nekk gan ndax kii ñii ñooy suñuy mbokk sama maam euh, madun radiallahu anhu Cheikh Omar moo ko fekk kasaas may ko wér maam madun amoon na ay doom kiñ ci gën a xam mooy alaaj Ahmad Baro mais amoon na ku ñuy wax Samba Maram ak Ibra Maram ñooñu ñoy Mamu, ñom muniru salum ñi ngeen di deg wa keur saaroq yi waa kafrin yi ngeen di deg ñoo ñep mëdul moy sen bay moy sen mo jur sen mam mam ahmad boro nak dafa bokul ak ñom lay mom ben la won ci yaayam comme ni mam aladi nekkon ben bu bu góor ci yaayam mais ñom ñoñu sen seuti ñoy ñi ta mam aladi dalena fonkon waaw ne bi mu daan dal dal njabot cheikh mourou fouti ne bi du du ki de fi ngeen dal daal ilaha illallah ah mën naa am bi beesul de waaye néeg la ci néeg yi yéen rek la fay dalal waaw moom néegu Saalum Saalum waaw njabootu Cheikh Omarul Fouti daan nañ fi def ñetti weer Cerno Muntaga daaxa néeg bu doy waar la laaj da leen fonk maamalaaj dafa bëgg mbokk gisoo ñoom baaba njegéen ñi jóge Kaffrine suñu ñëwee man leen toog leen fii ñu waxtaan échanger parce seen maam ak maam Ahmad Baro bokk benn bàyyi muy Madum Jigéen te nit du tànn mbokkam donc euh, euh, Moussa mi yàlla moo ko booleeg alaaj mu niiru mu bëgg ko sopp ko gëm ko sëriñ mu niiru moo ko defal ijaaza daggal ko gàmm boo xamante ne at mu jot ñun ñii ñu bari dem nañ kaas kër Saaro muy def teraangam def coonoom rek lu nekk seen imam ba fa nekkoon yàlla yàlla yokk leer imam ka imam Sarr marche imam Sarr tabarakallah di borom xam-xam di alim bu mag bind lu nekk ci alaj bu ay xasaayid ak ay risalaat ak ay mongok yu doy waar di ku baax moom nii tabarakallah alaj bu niru moo ko wóolu bëgg ko sopp ko moom it mu bëgg ko sopp ko kon nag su ñëwee fii la doon taxaw doon nuyoo rek mm-hmm. ma ne ko yegg sil ah, nga nuyoonteeg njaboot gi ngir ku la gis xam ni ñu bokkee waaye tamit ñi lay suivre ci internet ci àdduna bi mm-hmm. nga xamante ni jege neen ñoo ngi fépp ci àdduna bi mm-hmm. ñu xam ni ah waa Thiès a ngi fi waaye tamit Saalum yëpp a ngi fi moo ngi dëkk Kër Saa Roqi Kër Saa Roqi da ngay dem ba Kër Madiabel mm-hmm. mooy fi Moustapha Niass dëkk Kër Tafa Kër Tafa Kër Madiabel mm-hmm. nga daal di duggaat nag ca biir Wakki Nguna waaw Kër Tafa waaw Kër Saaro ximati topp mm-hmm. daanaka ñoom ak Gambie benn la da ngay dox ak daal di dugg waaw frontière u la man dem naa fa ay yoon cinq kilomètres dem naa fa ay yoon dem nañ fa kii euh, ànd ñu ñëpp dem Serigne Mouniru sax dem na fa dem na ñaari yoon dem na fa ñaari dem bu garaaw eh, jotaay yokk mais ci buntu dëkk ba la war seen fas non mais loolu képp da nga naan lii yonent bi muy dugg Madina la loolu loolu fay gisoo ko ni sa bët mënoo koo gëm dëgg la nit ñi dañuy jooy comme xale mais dëkk bi dañuy génn takk ay drapeau yor ay fas gaa yi njaabal njaabal yoo xamante ni oh xotti suuf si jóg mais gis nga ñun yoon wa dafa metti voyage bu metti la waaye billaahi laa la loo sonn da ngay sonn sonn sonn ba dootoo bëgg dara dara mais billaahi doo doo doo jubee kër saa roqi ba gis fas yi kolon yi xale yi génn jigéen ñi génn coow li da ngay fàtte say coono da ngay bigg bigg ba kenn du xam

mu ne ko ñooñu amuñu ñaar dërëm waaye dañoo bëgg mu ne ko ñun ñoo ngi am lépp waaye fu ñu toll di xaru waaw moo tax lépp ci xol la yàlla na yàlla fay la njëgën fay la yiw ñii ñëpp say njaboot lañu say taalibe lañu dañoo ñëwoon rek ziarante di waxtaan ngir jëm yàlla am na ci ñoo xamante ni ay sëtu Maam Alaaji lañ tamit ñoo ngi ci biir ñoom it xam naa ni kontaan nañ ci gis la ndax askan wi benn rek la sama maam daan wax ne soo ñëwee ne ko ah dem naa jotaay ñu teral ma mu ne ah kooku su ma jotoon man mii lay teral waaw mu ne askan doo teralee kenn teral nga ñëpp ay yéen a ngi nii ca wàkk nguna yéen a ngi ca am bi mais lu xew ci kër gi ñu ne ah seen mbokk yi lu leen dégg rek lu ñu dégg dañ ah, ah seen mbokk yi dégg nañ ci nangam bu dee lu baax la bu dee safaan kon nag ñun ñoo bokk lépp dégg mam as jërëjëf jërëjëf maanaam boo gisee man ma sokk fii fii laa bokk mais nit day bokk ci kër ci duñ ko teg fenn mm-hmm. man nag dañu ma teg fuur rëy depuis sama papa la jox ma njëgën su ma ñëwaan fii léppam man la su ma waxtaanee moom ba pare mu yebal ma ci sëñ Munir ne ma demal ci sa waa ji moom moo ñu boole ma sëñ su ma demee ànd ak sëñ Maniour ñu ñawaat ci paa bi mu ne ma mu ne ko dénk naa la Mame Moussa fonkal ma Mame Moussa am na benn jour dafa oo sëñ Maniour as boro sëñ Tafa boobu alaaj daa mi ngi dund mu woo ko oo sëñ Sidi oo ñëpp toog mu ne dénk naa leen Mame Moussa sama kanam sama gannaaw fonkal leen ma ko sëñ tax mu jógee Kasaaro fii ñëw ba Kasaaro baat boobu moo tax ndax bàyyi moo ko toog nañ fii ci salle bi mu raay son bopp bi ne ma njëgan maa ngi lay xoolee ñaari bët mais su ma génnee àddina fukki bët ak ñaar daa lay xoolee billaahi wallaahi taala moo tax du ma ñemee def lu bon du ma ko ñemee wax ndax fu ma toll xam naa ne góor gi mu ngi ma samp ay bëtam billaahi alaj moo ma wax lii ne ma nag demal foo nekk daana fa fekk mu de génn àddina sëñ ma ñëwul ne su ma waxi papa jooju moom lañu topp ba keroog ñu génn àddina ci la ma jox li jaar sa këram may ma daayira tudde ko biru wa taqwa may ma gàmmoo

man ma ñëw bëgg fa samp diine day métti samay nijaay yi xam ne ñoo bokk sama yaay ndey ak baay dañ ma doon ŋàññi di ma xas di ma wax lu ne dafa goog lii mënu ko fi indi def nangam nangam bi ma ñëwee ne ko li jaay sa baa ngi jox nañ ma may nañ ma gàmmu sëñ bi dana ñëw lañ may tegal mooy da ngaa goog yow am nga dara seen sëñ bi ñu ñëw fii ñun bi ñu bi bi nga juddoogul ñu ngi daan dem tiwaawoon ba fii ñu toog tey amuñ dara jaay suñ ta doomu sëriñ ñëw fi yow nga ne seen xalifa dana ñëw fii ma ne ko yéen taalibe bi ngeen mu ne man gis nga sëriñ ñi ngeen yaakaar Tiwaawan maa ngi ñoo ma gis nga kër ma alaaji mu ne ah ma ko alaaji amat njëgën mu ne ah ma ne ko ak alaaji amat baro ñoo ko sëñ alaaji Malick si ñoo yem képp képp ku bokk njëgën yëpp waa siheen yëbulu leen dara waa Tuubaa yëbulu leen dara taalibe bi ngeen man sëriñ la te da xam ne man sëriñ la ñu ne baax na waaye biñ toogee ba nga xam ne ñu ne teel a gàmmu gi xale yi jàpp fii jigéen jàpp fi mooy teertu boobu ngeen doon fas yi keroog ma ñi sax dañ doon jooy bii sëñ mën yu ñëwee ba toog ñëpp toog ku ne ne maa ko jur ah, te xamul luñu ma ko ku ne ñii ne maay ni jaay ñii ne yaay bokk ne ñii ne maag yaay bokk bàyyi eh, c'est trop tard yéen ba yi amoon yàlla dogalu ko ngeen siggil ma kër sarok siggi boo xam ne tund woowu yëpp ñoo koy wax yàlla dimbali ba ma am ay taalibe yu am yu pël fuuta am yu lawbe am yu séeréer pour kër maam mom la fa nekkal sama dund yeb ko ma la ji guddi becc suba ngor sa yu ma déparé fofu di ñew Oh, da fay melni ku dé bañu la duwal oh billahi pour ni yalla ci dama wax ni man njëgal laa sant mu xaddam la amna ay talib mais fi talib la fi doon ba bamay gën man billahi wallahi taala kep ku ma gis mu sant njëgal fi rek ma ngi ci suuf ya ma gën fouf yow la yaakaar guddi yow laay bu ci kep ku sant njëgal mom lay dund guddi mom lay dund ci ngeen xam lolu surtout nag njabootu alaaji Ahmad ak njabootu Serigne Modou Ndiéguène sopp naa leen ba keroog mbay lalu suma ndeyjoor bi sopp naa ci du ma leen ñàkk sopp mukk sama yaakaar yëpp mu ci yéen billaahi ngeen yëg moom la ngeen ñàkk yëg moom la mais Serigne Modou yi si gis na ma lool ndax ñoom taxaw nañ ko sarok yëpp taxaw ñu ne maamu su bi muy ñëw kees lu ndaw la ba fii ñu toog tey mosu ñoo wax lu dañ mosu ñoo wax lu amul lépp lu ñu wax la lu am mais mais loolu loolu ndam la te gis ne dañu wax ne kër nijaay boo fay uti daraja boo amul san doo ko am kër nijaay boo amul san doo mais yéen yéen ma jàppale dimbale ma yëkkati ma ca kaw dama leen wax ñoom ne leen man barigo bu defutoon dara laa xottu barigo dara nekku ci du ndox du dawlin du essence du gasoil mais sëñ mënul Ndiagane sàcc na ma ba ma fees ak or oh. kenn atunu mag billaahi wallaahi taalaahi foofu kenn atunu ma te sëñ Maniru Njëgën moo ko def alaaji Axma Njëgën ak njobootu Njëgën neen kon maa ngi sant bu baax maa ngi di gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla nag fan wu gudd wànde bu wér jaamu yàlla guñ nangu yal ko saa borom def te xam naa ne fii wax naa ko kii sama jarbaat la murit la de moom murit la waaye dégg na kër maam gis na leen ci télévision nee na man damay dem kër maam alaaji gàmmu ji fa mais ba mu ñëwee li ma wax démb mooy ndekki fii yàlla kese fi ne fii yàlla kese fi ne de ku bëgg yàlla rek ca bëgg dëgg rek ca bëgg a topp yàlla rek ñëwal kër Maam Alaaji moo fi ne moo tax sawar daa fi indi ku ne nag ku ne su ma fi ñëwee rek ci gi waaw dañuy gërëm bu baax di sant di sant suñ munilu di sant nag ndey bi lii mooy Alaaji wax ma njëgal mi ma boole sëñ munilu moom yàlla moo ma ko bëgg loo moom dafa ñëw ne Maam Moussa mi yàlla ma ko bëgg loo ci sama xol maa ko bëgg gis nga yow Mor Talla yaa Habib yaa ngi abi yéen ñaar billaahi wallaahi saal bi ñëw ngeen ci bàyyi ma fop kii teg fii fop kii teg fii billaahi boobu yéen góor gu ndaw billaahi wallaahi waaw war na yàlla yontu waaw kon sant yàlla rek pourtant kër gu mel nii ñu bokk ak nit mu nekk ca saalu ñu jël ko yëkkati ko ca kaw mais nii bokk naa ni ci ñu xeeb la de kon kër gu mel nii kuñ bokk safoo la yëkkati la ca kaw mais da ngaa war a sant yàlla man damaa sant yàlla bu baax damaa sant yàlla bu baax a baax wallaahi wal kitaab xooluma fenn déglu ma fenn surtout ma fenn kër Mama Ladji moom rek moom lay siiwul guddi ak bëccëg fu ma tolli nag maa ngi xeexal man lañ tuddee gaynde sëriñ Maniru siiw na te loolu moo am billaay ku bëgg a dal ci kaw sëñ Maniru ma fàttali la nga dal ku bëgg a dal ci njaboot sëñ Maniru ma fàttali la nga dal billaay wallahi taalaay incha allahu ci moo ne ci man ba ba may dee waaw kon sant naa gërëm naa. jërëjëf jërëjëf na yàlla gërëm. amiin amiin jërëjëf Aliou Ndiaye moo am jërëjëf. Euh, bisimilah Babacar après bàcc sànni ñu ñu ñaan nag yëkkati incha allahu taala tuuxul am bac mu amee bac damaa bëggoon dem fac fac droit mais man damaa yàgg sàggan bi gars yi déposé ma déposé wu gars yi déposé na bu yóbbu affaire yi liste yi déposé wu benn jour laa xëy na rek dem Dakar benn dem Dakar bi may ak ak buntu rectorat laay dayante kees gi war dem fac droit dem man sama orientation ba léegi maa ko yóbbu sama bopp dem teg ko si kees gi yu ñeeku gars yi yóbbu ma foofu fan du dem ba ci biir gars yi fay ko buus man fay ko mu parce que sama kayit dafa manqué woon benn benn papier ma dem waaj na ma du la fay paye na ma du la fay ma def kaf waaj na du la fay ma wax benn booy ma kii non dina ma fay mun ma ah mun ko xaar ma ca jàdd dogu laa xam ne ci maam laaj oh. dogu dogu boobu boobu mooy xool ma dogu ndax wallaay dina fay baat ma laaj jaar kii jox ko waaye moo ko joxee kii ba léegi tijji ko ma laaj ñu jox ko di tijji ko fay moom ma ma dem amoon na benn xale ma ma daan jàng léegi sax mi ngi ci états dafa ñëw ñu ñu dàq ko mu ñëw di jooy ñu jooy jooy jooy jooy ne ma comme li gars waxee foo dem gars yi man xam man su ma demee fii ñaama ñaanal foofu. man xam nga man man xam ni sama sama xawma lii amul cinq saako ba six saako ñoo ma ñaan sérieusement damay bañ gars yi ma ñaan affaire bu gaaw ma ñaan xale bi di jooy di jooy di jooy di jooy jooy man xawma lu ko wax buy jooy man man ma jàng ndànk sàngam ba ma ma jékki-jékki commencé jooy gars ma wàcc jàpp toog woo gars yi ma leen te yàlla xam na ne tegu ma ko fenn ne gars toog jàngu ma dara toog mu leen taale seen loxo mu kay euh, wax euh, man ko bàkki maam alaaj laxate boo demee si si sens kii bi monsieur non fac bi man ko si du moins assesseur bi boo demee wallaahi dina jël gars yi na mo man ko bàkki maam alaaj na ko jël taal na ko ñu moom ba ñett ta Fatia bi juróom ñetti laaj ñu xam jox ko baax sax xaw su su ma tëj damay juub ma wax ko ci bàkki maam alaaj ko demal ah. mu dem dikk ne ma waaye jël ah na ma. mu dem waaye jël na ma su mais bee mu jox moom boobu las bi dafa laa yem man valide naa bi may jàng ñi ma xam dëgg valide naa ay matières yoo xam ne ba léegi bindu ma ko man bindu ma ko may valide matière bi ma dem examen benn matière la woon ma toog ma ne man damay war a te ma laaj xam na dinaa passé parce que damay ñëw fii si xablu bi ñaan dem. moo demee gars yi woo def ak yeneen boobu bu aw ko ma toog ak sama gars yi gars yi wax gars yi dama la ah man damaa war a passé te pour ma passé il faut ñu joxe QCM ndax leen ma doo bind te soo bindul doo passé QCM mooy lan question à soi multiple ma xam da ngay loolu dañoo ma wax loolu gars yi dama ma leen bàcc maam laa ji wala ji QCM te te pour ma il faut loolu am gars yi jékki-jékki gars man bi bi bi gars yi joxee kii sax mën na ma jooy parce que maanaam jël naa ay risques yoo xam ne tegu ma ko fenn fenn fenn fenn gëm tegu ma ko fenn dinaa ni sama xarit bi ma ay ñoom mata tànnis ay ñoom mboq temps dama naan ba bu ñu dem ay examen kenn xaaral dem te ñaanum te ñaan ma dool lii bi bagage bi faatiya bi ñett pay ak juróom-ñeent yi te sax surtout nga tëdd may juum parce que moo xul ma ko ba léegi mais dafa naan gars yi kaay la ñu ñëw soo ko waxee bël bël leen nii nan dem tawféex waaw ñun ñaata la woon diis la fukk ñun ñëpp jàng nañ ba te lii moo ne woon suñu secret ay muyut lañ mais dama nañ sax gëm nañu ni sax su ma ñaanul kenn am na kon man su ma bëggul maam laa ji ma sama doom ji sax mu tudd maam laa damaa takk jabar mais ah man sama jabar xale la man xëy na dañ jàng donc yàlla na ma yàlla def mu jàng ba ñaay at ma xaw a dëgër yàlla même doomu góor ma turé ko maama laaj wallaahi noonu la demee exactement bi may am ña ñaari at de mariage la sama jabar ëmb bi mu ëmbee moom dama ko nëbb na ma doomu jigéen nga ma ko noonu loolu mënul nekk bi mu juddoo muy doomu góor <laughs> lan laay def loolu turé ko maama amatu loon pexe force la woon mhm. man ku ma xam sax xamoon na ni sama doomu maama laaj tudd ñi ma xam ñëpp xamoon nañ ko parce que mënu la man su ma diggante maama laaj mënu ma ko sax expliquer <laughs> loolu dafa nekk affaire yu garaaw. kii laa na man man. waaw nekk affaire yu dafa nekk affaire yu garaaw sama diggante ma ma ma laaj waaye nag di ci di sant baax Pa Moundou man man su ma leen xool sax man damay jooy man mënu maa wax si yéen parce que dafa bëri si yéen ba lépp lu may def loo xam ne kër ma laaj amu si dama koy bàyyi. loolu xam dëgg xam nga ko. Mm-hmm. wax nañ ma dëggantaan xam nga man lépp ma laaj amul intérêt dama koy tax képp ku may ànd ak ku doon muy président. ministre ak lu ma doon par par force da nga ñëw si ko man dama lay parce que man su ma nay am pepp te fii amu ci man ma baay parce que xam naa ne moom laa jàll seet seet seetaanu ma parce que man sama àdduna ni muy demee ni muy doxee peut-être sama xam ne li may wax dépassé naa ma yow noppil bul wax parce que tellement moom dama kaa jaaxal parce que tuux dund bu ne damay dugg mais ci barke maam laa ji dama ciy génn donc donc donc moom moom maam laa ji man gëm naa ni nit yàlla pire la te kenn ëpp ko daraja loolu moom ñi naa ji sama loxo bi teg ko ci gaam waat ko te lu ma gëm la te lu ma dund la yow nag comme ko ñëpp di am ñu sa parce que sànq wax ci wax ci wax ni dina am milliard du xam mu koy gérer mais yow fexe nga ñun ba ñu xam ba ñu wala ba xam bëgg ki bëgg Mame Laye lii fexe xam ñun fu ñuy jaar ba li ñu bëgg Mame Laye ñu am ko donc yow sax dama koy doonee ne man gëwuma laa gëm ah, non non yow gëm naa la mais Mame Laye laa bëgg c'est yow man man gën a gëm mais dama kaa bëgg. dégg nga gëm oh, moom sax moo xam na ko mais moom laa dama kaa bëgg moom. ay benn benn affaire la mais li gën a jël kàddu sax sax doon sax loolu mais Mbaye Fall Ndiaye moo tax moom moo gën a tax ma jël kàddu moom. ndax li tax sànq samay biir sama njëlbeen wax war naa ko daa am ay conditions yooyu nii mooy sama yaay daa toog nga toog may xam na baax li may wax may faal man ba ñëwee safina gars yi naan sëñ moo man dama ne man sëñ moo numu sama sëñ man may faal mooy sama sëñ lu tax parce dama leen comme sëñ moo laa bi daa xam fekk nga fekk nga maxu ñoom seen mbir ñoom alaaj maa ñoom bàcc ñoom ñëpp soo bëggee ñoom ah da yàgg te comme mbay mooy jëw yi léegi su ma demee man nekk pooy mbay léegi man damay jege sëñ bi ndax léegi mbay su fi nekkul may nekk may taxaw taxaw mbay te ko mbay deuxième léegi saa yu may nekk moo tax ñu ñu ñaan ñu ñëw ma relation parce que saa yu mbay defee man maa fi nekk kon gis nga des fois ñi nga xam ni ñoo fa ñëkk sax ma am naa benn focus bu gaaw te loolu moo tax moo tax mbay nen nekk sama sama copain mbay faal nag man li ma defal man damaa bëggoon sama yaay sax mu seedu ko maanaam yaay yaa ngi dégg fekkee man naa naa am daal si àdduna te mbay faal yaay mu jóo maanaam maanaam gis su boppam yàlla mu ko am. ndax mbay mbay jox na ma institution lu mat jox na ma institution ma inscrit lu mat cinquante mille wala soixante mille génnoon si poosam te temps yooyu man am naa ba ma bu ma dóor ba ma dama koy wax te temps yooyu man temps yooyu man dama am xaalis mais mbay dama daan toog boo inscrit du ma inscrit ñëw ndax joo xaw ma nu ma inscrit dem mu ngi yëkkati soixante mille na ma am demal ma dem saa yu ma toogee su ma amee problème su may dem Dakar sax du ma paax damay jékki-jékki xuut sama sax ne maa dem Dakar su ma ñëwee ma ko jóg jox ma dem bu jox ma te pourtant moo tax ni booy bi am na xaalis parce que ñàkk mool mais samay samay mbirum bopp lay nekk hmm. mais bëgg gi ma bëgg wala fi ma teg moo moo waral loolu am na loo xam ne nag defal na ma ko su woon caméra bi dinaa ko wax mais duma ko wax parce que parce que peut-être hmm. wax naa ko en direct lañ nekk mais joo am na loo xam ne moom moo xam man ma ko mii hmm. ñu dund ko mu nek lu garaaw lu lu yéeme ma jaaxle lol woo ma ko ne ko wóol ma joo ne ma ko wóol ma sama yaay wax ma wóol ma kenn dama ko wóol ma joo mu fekk ma foofu cotisé ko te kenn yëgu ko te pourtant loolu am na xam bu ko defoon ak jamono ji ak sama lam yooyu bi kon ken ken waxatu ko mais du do ko sax xoolee moo tax joo yow xam nga man xam naa yàlla xam na yàlla yàlla may daal li ma li ma li ma li ma séntu yëpp yàlla na ko yàlla def ma yow balaa may laaj sëñ moo tax yow damay laaj ak yow ba pare waaw balaa may laaj sëñ bi damay laaj ak yow ba pare yow moom xam naa daal yow daal moom mooy loolu daal benn nag di sant sama yaay baax a baax comme ni nga waxee parce que lépp parce que parce que lépp moom la jigéen ju baax la si yaayam moom bàyyi man maa ko sant waaw kon kon ma sala santal may kon mu may la wax di waaw kon ma sala man maa koy sant ndax ci man lay gën safee comme moom ndax yaayam la waaw maa ngi jégalu jotaay bi gën naa neexati ndax bi suñ sang yi dugg see waaw bi suñ sang yi dugg see dugg see ñun ñëpp say taalibe la ndax ñun ku bëgg sëñ ku bëgg Muniru rek ñun bëgg na la yàlla xam na loolu barke Cheikh Tidiane ci lu wér sëñ Muniru ku ko sopp rek sopp man dama ne ko man li tax dëkk bi lu ma neex man ñaar laa am ci àdduna ñaar mm-hmm. sama baay ak sëñ Muniru ma ne ko tax sama baay sëñ Muniiru mooy kilifaam man ko man lépp lu neex sëñ Muniiru boobu mu dérange ñi si des ñoo xam barke Cheikh Tidiane loolu laa ko néegam mu toog nii ma toog suuf nii man ko man fit bi ma am yow la parce que man ku la noonoo ma noonoo ko ku la sopp ma sopp ku la bëgg ma bëgg ko ku la ku la tegee nee ma tege ko nee amul sax ay calcul ba moom xam na ko ci man sama baay la sama sëriñ la sama xarit la loolu nag moo ngi ci yow suñu baay nga suñu sëriñ nga suñu xarit tayit nan la xam ne bu baax tayit gàmm gii ngay ñëw mhm. dina gën a neex dina la taral di taral say gan bu soobee yàlla man maa yor lépp luy lu ñuy togg ci waañ mhm. dinaa la bàyyi xel bu soobee yàlla ci ay yu baax ci naan ak ci lépp insha allah jàppante nañ te duñ la bàyyi ndax sopp nga soob suñ mënu yi te moom rek la ñu sëriñ soxna Ndeye mii moom moom sunu yaay la moo ñu yar moom sunu yaay la moo ñu yar lii lii li lii li dox ci ñoom maxtaar rek ak ak ak prince ak ñooñu man ñooñu laa xam ñii samay rakk la mais prince ak maxtaar ak ak biraan yàlla na ko yàlla yërëm yokki leeram ñooy sunuy ay ay ay ay génération ñii seen papa Dakar la nekkoon danaan ñëw ay ay weekend su daan ñëw boobu tam dibi dibi du ay doom baaroo du ko lekk de dibi paa bi lu mat jamono jooju xam naa na war a mat quinze mille wala dix mille lay def ci dibi bu mag su ñëwee fekk ñii même bu ñu bu ñu tamit bu ñu tamit dëgërul mënuñu lekk dibi ah normal ndax ay tout tànk lañ mm-hmm. mais bu ñu ñëwee tàndee day gis ni day dugg néegam fi génne boobu boobu ñu ngi ci ëtt bi su ko neexoon mu daal di wàññi wala mu am nu mu def mais dañuy woo ñun ñëpp man moo Gueye Moussa Diop ñun ñoo ñëpp daal di teg ci ëtt bi ñu teg waaw papam génn tonton Cheikh génn ndeysaan ak rafetaayam oobeeg macha allah génn xaalis ñu am dem li ngeen def meew ndeysaan dan ko daan yàqamti fi kenn mu jot soxna ndey yooyu mooy mooy mooy mooy mooy feeñ ci doomam nii rek yu baax yooyu te du mer kaf ak ñun réew ñun ah joxe lekk baax ci lycée ah, mu mel moo gis nga nit àdduna soxor day feeñ ba si kanam boo soxoree da ngay ñaaw barke shorten loolu la taawoo gi man taawa laa gàmmoo sax moo ma wàññi moom daf may napp daal maxu mi yi ma noonu wax yëpp maxu mi moo may woo bàcc man ko maxu ren waxuma sëriñ bi waxuma keneen waxuma taa awalaay wax xool ni mu rafete xool dafa am solo soo ñaawee day gën si sa kanam ku xool xam ni kii ku ñaaw la parce que Cheikh Tidiane taam taam ndey mi noonu la mel si ñun ñun moom ñun xam parce que Cheikh baax yaru joxe cër mën a togg lu doy lu baax ah. waaw mën a noonu daal léegi nag bi ci des mooy sama sama waay ju baax ji sëriñ xam ni man safina safina mënatumaa dàq si àdduna moo tax may def may may may may dof dof lu ni def lu ma neex de safina mënatumaa boot di mënatumaa dàq même su ma doon perturbé di saaga fii di perte di def billaay kenn mënatu maa dàq. bak soxti yan. amul ma ko may. amul ma ko may. Maxtaar Maxtaar mi Babacar mi Alaaj Cheikh Ibba fexe naa ba am na ñu ci tarixa bi. fexe naa ba tamponné nan ko maamalaaj sëñ Babacar mi baax mi. am Maxtaar. Maxtaar nag wàcce ma lépp. barke Cheikh ci ay ci ay xalaatam ci ay taxawaayam man xam naa ni man man damaa am pas-pas rek mais xam-xam bi doxal mbir mi moo ko yor moo tax lu mu def du ma ko dindi barke Cheikh su ma meree mu mer su ma li mu sëñ bi naan man ku ma tooñ doo ko yëg yow. ndax su ma joxee ndigal tamit doo ko jëfee foog xeexoo xeexoo kooku wala nga wax dara doo bàyyi moo tax yow doo xam ku ma tooñ ak ku ma indi indil waaw benn mbir maxtaar mi noonu la ma dimbalee ci def may wax bàcc bu dafa bul waxee nii bu defati nii parce que sàngam ak sàngam sàngam di ma couvrir gunge ma ci ci ci ci ci ci lépp ren jii wallahi lazim gàmmu ren barke Cheikh sama fukki dërëm demu ci gàmmu ren jii man sama fukki dërëm demu ci barke Cheikh Tidiane xale yi li ñu def ci gàmm mosuñu ko def ci gàmm li ma ci am mooy ñu woo euh, suñ foo nekk man leen maa ngi penc mën ñëw la ñu dem nga dem nga jëndal ñu nag ma ànd ak ñoom ñu leen xool nag bu leen bëgg ñu xool ni bii lañ bëgg pël bi comme man samay wóllëre la yàgg nañu jaaye nag waxtaan ak ñoom ñu daal di jënd nag bu mu baax ma waxaale ñoom ñu daal di jënd dem kon soo amee xale yu la dimbale ci loolu vraiment da nga leen di gërëm seen sunu yaay ji toog moo représenté suñu yaay ni taax ko yëpp moo tax ma ma ma ci occasion sëriñ maa ngi jégalu ndax waroo wax sax ñu ci teg kàddu rawatina suñu sëriñ bu baax bii ah te incha xam ne jàpp na soobee yàlla waaw ñi nga xam ni. ñun alaay mu rek la ñu am. parce que Cheikh ku ko fonk ñu fonk la ku ko jàpp ñu jàpp la ku ko yaakaar ñu yaakaar la ñun moom rek lañ am moo ñu dimbali. parce que Cheikh ñu ngi bëgg bu baax ci sa teewaay di gërëm suma sama sama mbokk murid bi man sama yaay murid la. loolu laay tooñee gars man la man loo yéen laa. sama maam loolu sant almarem loo moo juf ndayal sekk ndayal sekk moo ma jur sama maam mu ngi dëkk euh, ngaabu waaw ngaabu loo yéen yi nekk foofu ku nekk ñëpp xam nañ waaw waaye yàlla moo fii mu loolu nag waaye loo yéen gi nag léeg-léeg ma nappee ko gars yi waaw ndeysaan pour wàll nag ñun fii fii moom lépp a fi am ëttu njëgëneen rek la sëriñ sépp ñëw di taxaw di wax di tagg seen sëriñ Baay Faal bi ñëw zikkar murit bi ñëw jàngi xasidaam ñaseen bi ñëw zikkar eeram laayeen bi ñëw zikkar eeram neen rek waaye sëñ bi confirmé ko sànq maa maanaam alaaj maa men njëgën central la central nag xam courant bi jógee fekk courant yëpp la yemale bu ñëw mu def ko bu boo lay jox waa dëkk bi cent da koy jël jox dëkk bi jox ñëpp cent vingt alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. jërëjëf xitaamuhu miskul donc lépp mat na ñaan rek yàlla may ñu jàmm may ñu gudd fan may ñu wér may ñu sutura may ñu teraanga may ñu xéewal may ñu yëkkati ko zahiran wa baatinan may ñu mucc ak mucc le alhamdulilah tabarakallahu daanaka tisbaar ba tey ñoo ngi toog <laughs> quinze heures ba tey ñoo ngi toog waaye nag baax na lépp yiw la suñu nekkoon ci leneen tamit ñu ne nii moment bi li ñu daj nii am na ñu koy daj ci mooy yàlla du seen sàggan ñu ni du suñu fulla ndimbalu yàlla rek la ndax su nekkuloon loolu kenn du wax ihdina siraatal mustaqim ci julli yàlla jubal ñu te nga nekk ci biir jàkka ji di wax yàlla mu jubal la nga xam ne mooy yàlla doole mu njub rek loolu kese la yàlla nañu yàlla dolli sutura dolli teraanga yi jotaay bii yàlla nekk suñu texe ñun ñëpp nekk sunu ubbeeku nekk suñu defaru nekk suñu yëkkatiku yàlla nañu yàlla may ay gàmmuy gàmmu gàmmu te at mu ñëw gën a neex gën a baax gën a yaatu teraanga yi gën a yokk xéwal yi gën a yokk yàlla barkeel njaboot yëpp mbokk yi jógee fu sori yàlla yóbbuwaat leen ci jàmm ñu fekk waat seen i njaboot ci jàmm bàyyi ñu ci jàmm ñu gisante waat ci jàmm Adja yalla barkel njabot gi may la wér bay la fi ba ci kanam ba nga fekkee njariñu njabot gi yëpp te ken bañ la barke yalla Muhammad alaihi sallam sunu soxna ci yalla moom it dolli ko jàmm euh, tabaarakallaahu moom daf ñoo bëgg rek <laughs> ngir jëm yalla ba lool mom la doomam yëpp nàmp ba sopp ma lool macha allah bu jigéen moy sama taw bu jigéen barakallah yalla yalla barkel ci sëram la fi la yaro presque yag na fi lool ci soxna macha allah waaye wéttali rek ku bëgg diine la nit ku baax la moom it lislaam rek moo ko ñor macha allah sëñ euh, Bilal jërëjëf bég nañu jotaay bi gudd na waaye waaw baax na kontaan nañ bu baax sa sa teewaay yal na yàlla gën a yokk say affaire ubbil la ay bunt yu bëri nag ba nga waaw yal na ko yàlla def jërëjëf gars yi sama gaynde yi Mouhamed Dramé mu ngi jóge ba Mbour. ndeysaan moom it daaw ci bisu gàmmu gi ci la jël wér. moo tax mu ñëw keroog doon yeesu di ko barkeelwaat. Abdou Khadir Ciss doomu Alaaji Ciss la ñëpp xam nañ ko Alaaji Ciss borom tur yàlla yi waaw moom papa ma ko yebal fii mu jël si wér. waaw waaye boobu moom moom it boobu ba tey moo ngi góorgóorlu. dëgg yàlla sa baay wax naa la ne la du wér du moo tax mu yebal la fi. du pour tur yàlla ndax ñun ñi duñ bëggee ci moom la ñuy dem di ko mu jox kon barke rek la bëgg. barke nak ñak mo koy may ñun amuñu barke way mama Alaaji na barke yàlla la yàlla jox barke sa bay sa barke turondo barke Cheikh Omar Fouti barke Alaaji ahmed Baro barke maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène barke Cheikh Tijani barke sallallahu alayhi wasallam Jibril Mikail Asrafil Azrail barke Hamalatul Arsh yeb ak sahaba yonent yàlla Mouhamed barke yonent yëpp yàlla nañu yàlla jox barke alquranul karim soxna yi Kumba jëf engagement yal yàlla fay leen yiw yàlla na dem ba dépassé seen i njort ak seen i xalaat ba ñuy ñëw di jël ci yéen expérience ak alxuraan gars yi tamit ñun ñëpp Mouhamed Thioune étudiant la mu ngi jóge ba Ndar tey ren mu def un travail remarquable parce que zone bi gënoon sensible moom laa ko teg ci loxo mais doomu gendarme la waaw lép lépp ci fulla ci fayda waaw te mënoon na bañ a kii étudiant la mënoon na jaay affaire tey demal nii waaw tey ñibbi nii waaw wax na ma démb la waroon dem sax ma ne ko tëddal noppalu ndax xam naa li mu daj waaw donc félicitations sa sa hmm. hmm. ah, hmm. test la woon mais réussir nga ko donc ku ko jox responsabilité mën na ko gérer si si boole ah, ci benn caaxaan benn fo lépp jaar sama jarbaat Mamadou Loum ndeysaan sama gaynde ji nit ku baax la man moom daf maa bëgg ba ba ma yëg ko bu baax waaw ah, mais nag lépp yiw la yal nañu yàlla boole dimbali ah, boole ñu jàppale waaw ah, te léeg-léeg comme ni ma koy waxee bëgg sëñ moor moom léeg-léeg du yomb waaw léeg du yomb de waaw du yomb de ah mu saf sap yi ñëpp a ngi wax yombul yombul <laughs> waaye nag noonu la yàlla moom bu dee dëgg la rek day saf maa la ko wax noonu la day nattu ay gaayam sama gaay yi ñoom ñëpp xaaj Moussa sama gaynde gi tabarkalla moom jambar la borom pas-pas la ma ko moom moom beneen affaire la heureusement sax du wax waaye am na xam-xam de am na xam-xam yu xóot xam-xam yu xóot sëñ Abdoul Aziz ñoom ñëpp ay gaynde lañu jërëjëf Haj Ablaye Sam, borom néeg bi moom moom nañ ko bàyyi néeg bi rek moom moom bi daal nañ ko ko borom bi jërëjëf Samb yow it yàlla na yàlla ubbi la bu baax soo la xéwal yu bëri Pape Massa macha allah waaw sunu sët la sunu jarbaat moo ko jur waaw donc man moom damay damay déglu yàlla rek waaw gàmmu gi mbay nekku fi donc am na yu bëri yu mu daan toppatoo bi ma gisee rek xam naa ni moom mii ci moom la daal hmm. te xale bu ndaw la waaye ay millions ñoo jaar ci loxo waaw ah. tubaarkalla xam naa ko bu baax ndax euh, responsabilité yi mu yor am na mag ñu bari yoruñu ko waaw fam fa mu bokk ñëpp ko wóolu waaw donc nag mu yàlla du feeñalee mbir euh, mu dal ci moom mu gérer ko comme il faut ci sutura waaw il ñu ñaanal ko moom it yàlla gën koo sàmm te loolu yëpp ñoom ñëpp ko bokk moom bokkam yëpp xaaj Malick gis nga li mu daj yëpp ci gàmm gi mm. moo fees nag yëpp moom ñoom Souleymane ak gars yi incha allah moom daal kenn mënul matal ñëpp waaw yal na yàlla fay ñëpp ñi ma tuddul tamit tudd naa leen sama xol waaw te yàlla mi dul fàtte du juum incha allah xaaj latir tabarakallah moom laa dénkoon rawdu ba nga loolu liggéey bu rëy la waaw ñi ngeen gis ñu toog noonu di jàng alxuraan di jàng say fii ñoom ñii la waaw liggéey bu garaaw a garaaw lañ def tamit lépp chaîne la daal comme ni ko gars yi waxee kenn ku nekk am na responsabilité taxaw na yàlla na yàlla barke alxuraanu karim kontaan nañ bu baax Babacar yow ndekete nii nga aaye yow il faut il faut nga commencé waxtaan ci daayira bi de di waxtaane maamalaaj sëñ Baye jërëjëf yal na yàlla fay yiw xaj bàcc jërëjëf barkallaahu yàlla barkeel lu bari dal nañ sa kaw jamono yi waaye teewul taxaw nga bu baax waaw xam naa lépp xam naa lépp waaw lu bari dal nañ sa kaw yu metti waaye taxaw nga rek muñ waaw taxaw bu baax am fulla am fayda sa papa ak sa goro sa sa frère yeeg sa mbokk yi dëj ci dëj la jógee nii sax donc waaye ñoom ñëpp ay jàmbaar lañu mooy li may wax rek seen xol yi man moom laay xool <laughs> xol yi rek laay xool te xol yi xam naa ni mbaax rek a ci nekk waaw yàlla nañu yàlla boole sutural waaw kon duñ ko toppee ah waaw <laughs> sëñ Moussa Ngom <laughs> xaritu Mara yàlla suturaal bu baax a baax kon ñu bokk ñaan rek du noonu sëñ Moussa ñu ñaan ñaan gi ñu yéenal ci sëriñ bi sëriñ Muniru yàlla dooli ko wér hmm? yàlla dooli ko sutura yàlla bàyyi ko ba ci kanam bi koy tudd la sëtam yi di yegg si Cheikh Omar rek sëñ bi sëy sëñ bi ñu euh, jaw macha allah yegg si leen yegg si leen ñu bokk ñaan dugg leen dugg leen Cheikh Omar doomu alaaj Bada la. mu sama papa waaw waaw. yaay maam waaw naka mu yaa ngi ci jàmm. sëñ Sey. sëñ sëñ sëñ Diaw. toogal. alaaj Bada bii way mooy papaam. waaw mooy taawam quoi. waaw kay ñëw nañu Kër Saara. ñoo jàng jàng yu njëkk yëpp. waaw waaw dëgg la. mooy Cheikh Omar Cheikh Omar Diaw samaam lañ doon ñaanal rek samaam mu niiru yàlla ko wér non non ñu nit barke ñaan gi dal ci ñun ñu nit ñu am wér am xéewal am sutur ak teraanga ak mucc àdduna ak àllaaxira barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam barke gàmmu gi barke coono yi ñu ci def yëpp barke la Alxuraan karim kon ñu bokk def ñaan gi rek incha allah te noonu yooyu yàlla na amin te ñu bokk ko ñun ñëpp incha allahu taala jërëjëf bismillah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 يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف